maanaam bu fekkee ne moom mooy jiite mbooloo mu muy jiite ñoom ñëpp ñoo maase ci bañ ak njiitam kooku saye ba mu bàyyi na bàyyi bu wér a wér bu fekkee ne itam ñu ëpp ca mbooloo ma la saye ba mu bàyyi bañ leen a jiiteeti bu fekkee ne itam ñu gën a néew ca mbooloo ma la waaye dañuy gaay yu baax yu ràññiku yoo xam ne xam nañ ne addunay kese du tax ñu jam kenn du tax ñu bañ kenn bu fekkee ñoo ñaa ko bañit moom ilimaan jooju saye moom bàyyi bañ a jiiteeti su fekkee nag kon ñu gën a néew rek ñooy bañ ak njiitam te bokkuñu ca gaa yi ràññiku loola kon du tee mën naa jiite waaye daal su mbooloo mépp maasee ci wan ko gannaaw mbaa la ëpp ca mbooloo ma mbaa ñu ci gën a néew waaye gaa yu baax lañu ràññiku lañ kon bu mu xalaatee jiiteeti ak jiiteem day araam wakal achal li ak niki aji làggi làggi yàllaa koy teg nit ak la fa ñuy mel noonu kooku nag bu jiitee mu baax waaye sib nañ ak njiitam dañoo bëgg koo xam ne ay cëram mat na mankiwul dara mu jiite wa imaamatul ak jiite bilaa ridaa ci lu dul làmbaay di masjidin ci jàkka jiite ci jàkka te yorewoo làmbaay ñun nag ni ñu solo waxoon naa ne rafet na boo ci boliwul làmbaay du ko tee baax waaye nag taamu nañ képp kuy julli rek moo xam ci jàkka la moo xam du ci jàkka moo xam ilimaan la moo xam du ilimaan mu wut lu mel ne ab sarbet wala kaala di ko gàll ci ay mbaggam kay jiite ci jàkka ja nag moom bañ koo def loolu la wax ne sib nañ ko salaatul ak julli tujju talaagoog def na ko niir baynal asaab tey ni diggante kenu ya jàkka ja bu amee kenu muy ay poto diggante poto ba nekk moroom ma fa ñuy teg dàll ya nga xam ne kenn du fa jullee foofa sib nañ ku fa jullee xëy na seetlu nga ne diggante poto bu nekk moroom ma kenn du ko faral di lalaale dañ koy bàyyi rek muy tegukaayu ay dàll yooyu moo tax nag waqut daamal imaam yi ak ci njëxul ilimaan sa ilimaan ba lay jiite nga féete ko kanam mu féete la gannaaw bu fekkee du ngant nga xam ne xatu béréb baa ko waral des na ko sib bu fekkee na xatu béréb baa ko waral ngant ko waral daal nga tolloog moom te fekk na ñeneen nekk fa mbaa nga nekk ca kanamam jës ko sibati ndax ngant la waaye bu fekkee amul ngant rek ñu sib ko jamaaxatun ak mbooloo baax de salaati diltisaamin ci gannaaw jullit boroomuk taqoo mbaa boroomuk warlu dafa jublu ne su fekkee ne jàkka ja am na ilimaani raatib ilimaani raatib mooy koo xam ne dañ koo fal muy ilimaan mbooloom jullit ñi mën nañ koo fal ka jiite jullit ñi mën na koo fal borom jàkka ja ko tabax mën na koo fal loolu lépp ilimaani ratib la kooka nag bu jullee ci waxtu wa nga xam ne ca lay jullee ak mbooloom ba àggal meneen mbooloo dikk bëgg faa defaat mbooloo nag sib nañ ko ndax loolu day indi ak noonoo ak teqali nit ñi nga xam ne ñaar nag mbooloo la ci julli bu ilimaan boobu jiitee ba noppi ñaar sax bu ñu ñëwee ak lépp ñaar la gën mooy ñu génn ci biti am ku jiite ñu am julli mbooloo. waaye bu ñu bëggee jullee ci jàkk ja dañuy beru xante dañuy beru xante kenn ku ne julli sa julli bopp am nañu ne nag bu fekkoon ne ñooña ay doxaleem lañ fa buñ dikkee mën nañ faa def mbooloo ci jàkk ja ndax loolu du indi genn ŋaayoo wala genn xuloo mbaa dara waraatibun ak ilimaani raatib majhoolun ku di ku ñu réere koo xam dañoo réere ba xam ku maandu la am ku maandu wut la ñu ko def ilimaani raatib maanaam mu baaxoo faa jiite ci jàkka jooja loolu sib nañ ko aw man wala koo xam ne ubbi na tuumaaleef na ko dañ koy firee noonu rek waaye mooy kuy def ngóor jigéen ngóor jigéen nag mën naa am muy góor goo xam ne day nuru nuru lu jigéen ci wax yi na mag def yi nam mën naa am itam sax daana def caay caay gu demee noona lu mu ca mën doon rek sib nañu mu doon ilimaan fii mu toll moom day lim ñi nga xam ne sib nañu ñu def leen ilimaani raatib de sax ñi muy wax nii ñu jekki-jekki jiite benn yoon rek muy lu tombe deesu ko sib kon nag kii nga toll muy ngóor jigéen gi moom bu fekkee ne daana ko def tuub na tuub gu sell ba ñëpp xam ko du tey rek ñu sib ñu def ko ilimaani raatib ndax lañ xamoon ca moom démb ñi ci topp itam jàppal ne noonu la ñu def leen ilimaani raatib muy lu sax la ñu sib waaye gindi rek jiite moom nekkut lu wàññi dara maanaam daal deesu ko sib wa axlafun akub aat ab aat mooy ku xarafut ilimaan joo xam ne xarafut kon aat bi ñu def ko ilimaani raatib loola la ñu sib ndax day tax rek ñu koy teg ay baat di wax naa yéen seen ilimaan ji xarafut bu ko defee jëw yooyu nekk ay moy di wax yu doy waar xabdun akub jaam ab jaam ba tey ñu def ko ilimaani raatib sib nañ ko wàññiwul dara sax nag ndax jaam mën naa gën góor sax waaye day tax ñu koy teg ay baat naa leen yéen daal ngeen fekk ab jaam ngeen di ko def ilimaani raatib xasiin ak ku ñu tàpp am na jamono yoo xam ne ku masaamub jaam léeg-léeg nga di ko tàpp te fekk na tàpp googu lu araam la kenn sañuta tàpp doomi aadama waaye nag bu fekkee doomi aadama ñu xës nañu ko tàpp ba noppi sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ndax kon day tax rek jëw ya bari ñu naa ilimaan jooju ku ñu tàpp la nangam ak ki nangam ibnu sinan ak doomi njaaloo ba tey koo xam ne du doomi yoon bàyyam juru ko ci yoon ñu koy def muy ilimaani raatib sib nañu ko gënut ndax day tax rek ba tey jëw ya bari ñu sey mooy yàlla rek di ko wax naa yéen seen ilimaan ji du doomi yoon nangam ak ki nangam moo tax daal yu mel nii nañ ko moytu di ko def ilimaani raatibu wajaa sa dagan na ay niinun tuuña tuuña mooy koo xam ne ab sawukaayam daa tuuti ba nga xam ne mënta joteeg jigéen kooku nag ñu def ko ilimaan wàññiwul dara wa ama ak aji gumba maanaam ku gumba doon ilimaan wàññiwul dara alkanu ak aji dotam dotam moom ci wax ja lay feeñee ku dotam doon ilimaan wàññiwul dara mu jazzamun ak ku ñu ngaanaal xaf fa ko woyof na ku amee ngaana waaye ngaana gi tax koo diis du wàlleeti kenn kooku dagan na mu doon ilimaan de bu doon ngaana guy wàlle moom dañoo jëlale julli gi waaye dañ koy ber sax ba du jaxasoo nit ñi ba leen di wàll ngaana ga wa hada lii al mumkinu mooy aji jàppandi ja maanaam lii moo jàppandi ñu leeral ko ci béréb bi ñu toll wal muqtadi aji roy ja yat baaw dana topp al imaama ilimaan ba xalaa ziyaadati ndare ndolleen xadd xoqi xat loolu dëgg léef na ko maanaam wóoral léef na ko ian di lan na nga jeng xan xaa walis ndolleen la nee na boo amee ilimaan kat dangaa war a roy ci moom lu mu def rek nga def lu may nag mu yokk-yokk boo xam ne wóor na la ne ab yokk dong la su boobaa da nga koy sàbbaal ndax mu fàttaliku xam ne moom kat mi ngi yokk waaye doo ko topp ca ndolleen la wa ahrama armal na almas booxu kañu raw fawran ci lu gaaw wa daxalate mu tabbi maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba kay fa maakaan nu mu mën di nekkee alxamalu jëf ja nee na boo dikkee fekk ki lay jiite raw la foo ko fekk rek dalal di gaaw kàbbara ànd ak moom doo seet ne rek boobu ràkk xës na ma raw bu ma àndee ak moom léegi duma ko limaale nit ki nga fekk ko mu rukkoo ba siggi déedéet da ngay daal di wax allahu akbar rek ànd ak moom fa mu toll bu fekkee nag boo fekki woon jàpp ci woom ya booba ràkk doo ko wàññiwaale su fekkee nag fekkee nga jàpp ci woom ya bu dëgër dëgër da nga wàññiwaale booba ràkk mu kabbiran mbir mu muy aji wax allahu akbar in alfaahu ndem fekk na ko saajidan mbir muy aju sujoot aw raakihan wala muy aju rukoo laa fii jalsatin waxuñu nag ci ab jataay wataabaxa topp na ko rek daa wax ne nag su fekkee ne dangaa fekk ilimaan mu toll ci sujoot mbaa mu toll ci rukoo da ngay wax ñaari allahu akbar da ngay wax allahu akbar muy boo xam ne mooy kàbbaru armal bi nga waxaat nga waxaat nag beneen allahu akbar ngir rukoo ba nga ko fekk mbaa sujoot ba nga ko fekk waaye nag boo ko fekkoon ci jataay moom boo waxee sa allahu akbar muy armal doo waxaat beneen da ngay jekki-jekki rek toog doo waxaat beneen da ngay jekki-jekki rek toog fekk ko ca toogaay ba wataa ba xa jooju nag mooy na topp ilimaan daal ci lu mu ko fekk rek moo xam rukoo la moo xam sujjóot la moo xam ab jataay la ak nu mu ko mën di fekkee rek la daal di kàbbar te fekk ko ca loola in sàllama ndeem sëlmal na al imaamu ilimaan ba xaama mu jóg xaadiyan mbir muy aji fay aqwaalahoo waxam ya wa baaniyan tey aji jokk fir fi xaali ci jëf ya bu la ilimaan rawee ba sëlmal nag da ngay fay lamu la rawe woon te nga seetlu ne nag jëmmi wax jëmmi wax ya da nga ko cay roy maanaam ràkk bu ne lam ci jàngoon bu dee fatiha gu saar moom nga cay jàng bu dee fatiha kese moom nga cay jàng bu yaloo nga yalu bu biralee nga biral néew nu nag jëmmi saar wam jàngoon moom ngay jàng ndax bu fekkee fekki woo ko woon doo mën a xam sax saarum jàngoon waaye daal ràkk bu ne lam ci jàngoon ci fatiha ak saar mbaa fatiha kese loola yow it moom nga cay jàng bu des nag wàllu fii ilimaan toogoon na fi wala toogu fi woon loola moom doo ko seet yow daal foo xam ne yow sab ñaareel la toogal foofa waaye foo xam ne sab ñaareel rek bul ne ilimaan toogoon na fi ma it daa fiy toog mën nga koo misaali timis bu fekkee da nga caa fekke benn rakk ba ci mujj ñu rawe la ca ñaar ci misaal bu ilimaan samalee ba nga jóg ba taxaw da ngay jàng fatiha ku saar te biral ko ndax loola mooy ba ilimaan njëkk a julli rawe la ko waaye bu rakk boobu jeexee da ngay toog foofu taaya ndax loolu sab ñaareel la da ngay toog foofu kon taaya te ilimaan toogu foofu ndax moom benn la woon ca moom boo jógaatee rakk ba nga cay teg da nga ciy jàng faatiha ku saar te biral ko yow nag sab ñetteel la ndax xam nga am ñetteel da nga ci daan jàng faatiha kese waaye gis nga sa ñetteel bii da nga ci jàng faatiha ku saar te biral ko ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan yow nag la soppiku sab ñetteel kabbara kabbar na maanaam wax na allahu akbar in xaf sala ndeem amal na chef xan tollan tollan mooy ñaar aw aqal la mbaalu yées min rakkatin ci rakka loolu ab takk-takk la bu ilimaan sëlmalee fekk mu raw la nga jóg di fay ndax bala ngaa tàmbalee jàng da ngay wax allahu akbar njëkk am doo wax allahu akbar da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha takk-takk baa ngi nii bu fekkee la nga am ci julleem ñaar dong la du benn du ñett kon bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw bala ngaa tàmbalee jàng fatiha da ngay wax allahu akbar ba tey bu fekkee la nga fekk ci julleem matul sax benn rakka léegi da ngaa ñëw ci rakka ba ci mujj te fekkee woo jàpp ci wóom ya kon bu ilimaan sëlmalee boo jógee ba taxaw bul jéem a li xaamaat mbaa dara ndax yow tàmbali nga ba noppi waaye nag da ngay wax allahu akbar bala ngaa tàmbalee jàng fatiha ja lu bokk te yi yaar nag moom bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay jekki-jekki rek tàmbalee jàng fatiha te bañ caa boole wax allahu akbar ndaxam boo ci waxoon allahu akbar it du tax nag julli nga yàqu waxtama la yanu na asahwa jamooj ba idzaaka ba loolee soo xasee ànd ak ilimaan te am ca lu matu rakka xamal ne kon diir ba nga ànd ak moom loo ca def loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujootu jamooj ilimaan gàddul na la ko waaye itam nag boo xasee am ci julleem lu mat benn rakka léegi bépp njuum bépp njuum te bu ko war moom ilimaan rek donte fekki woo sax ba mu cay juum du tee loola war la ñu seet nag bu dee njuumte ba sujjóotu xabli salaam la ci ilimaan bay def fekk mu raw la kon nga defandoo koog moom ndax njëkk sëlmal la te sëlmalagoo moom it sëlmalagut bu fekkee day bax de salaam nag moom da ngay bàyyi ba fay lam la rawee woon ba àggal door a def nag bax de salaam ba moom lay wax naa wayes judu dana sujjóot almas booku kañu raw xabliyal imaam yi sujjóotu xablab ilimaan ba maxaxoo ànd ak moom waxadaate mu fay baax di yan sujjóotu baax da baax de salaam ci gannaaw sëlmal adraka moo xam jot na daaka sëxwa boobee njuumte xanaa boobee jamooj awlaa wala jotu ko xay yadoo tënk nañu ne man lam yu xasil ku amalut rakk xasan benn rakka laa yes judu du sujoot mooy li ma waxoon léegi boo xasee fekk julli ilimaan lu mat benn rakka njuumte bu ko war rek war na la bu dee def baax da nga bàyyi yow ba sëlmal door koo def bu dee def xabla nag nga ànd koog moom bu fekkee nag julleem amoo ci lu matub rakka nag kon amoo ci julleem nga dara dara boo jógee da ngay wax allahu akbar tàmbali sa julli bopp say rakka tegaloo nam tegaloo boo juumee nga defar ko bu fekkee ilimaan juumoon na itam njuumteel njuumteem loolee sa yoon nekku ca jotewul ak moom dara ndax amoo ci julleem lu mat benn rakka wa batalat julli yàqu na li muqtadin ñeel aji roy bi mu butilin ci lépp luy aji yàq xalal imaam yi ci ilimaan ba xayra faraxin ndare benn bànqaas maanaam ndare benn àtte rek mun jëlin bi aji feeñ nee na nag lépp lu yàq jullig ilimaan yàqaale jullig maamoom ba mu des nag benn àtte fiq boo xam na nga ko dégg jullig ilimaan dana yàqu te jullig maamoom du yàqu te mooy man zakara ka nga xam ne fàttaliku na alxadas am toj aw xoliba wala noteef ko bii ca toj ma in baadara ndéem gaawe na alxuroo ji génn ga min xaa ca julli ga àtte boobu mooy ilimaan ja nga xam ne mooy jiite day jiite ba ca biir mu fàttaliku ne moom kat tojle woon na mbaa boog am toj jekki-jekki rëcc ko kooka day su bàyyee fa saasay saasa defaatul dara ca julli ga gannaaw ba mu fàttalikoo toj ma mbaa gannaaw ba ko toj ma dalee su boobaa day moom dong mooy yàqule waaye ña mu doon jiite moom kenn du ca yàqule su boobaa nag wanu di ba soppeef na taqdiimu mu utam min jiital ajroy ajroy mooy maamoom yu timm kook dana mottali bihimoo ànd ak ñoom waaye we tax mu ne bihimoo de bihim rek mooy cosaan li sopp nañ ilimaan jooju nag yëg am toj mbaa mu fàttaliku ko bu dee dem mu bañ a jekki-jekki rek dem xanaa wuutal kenn ca mbooloo ma mu taxaw taxawaayam jiite ñu àggale julli ga fayin abaaxu ndeem bañ na ko nag in faradoo ñu kenn kennoo aw xaddamoo wala ñu jiital ku leen soob bu fekkee ne ilimaan jooju ngànt li dal dafa jekki-jekki rek dem wuutalut kenn kon mbooloo ma bu ñu bokkee roy ci kenn jiital ko mu baax bu ñu kenn kennoo kenn ku ne àggale sa julli itam mu baax la noo génn nag lépp lu aju ci julli nu fàttalee ne waxan na yeent julli yoo xam ne ilimaan ja koy jiite day teewlu waale ne maa ngi jiite ñii bokkoon na ca julli ragal julli ragal nag mooy bu jullit ñi ragalee yéefari gaañ leen ci bindee julli am na lu ñu nose julli ko te jàngale woon ko ci risaala ilimaan ja koy jiite na teewlu waale yéen a ja foofa ak jullig boole jullig boole mooy lu mel ne buñ dee boole timis ak gee ci asamaan si taw mbaa nam mel bu ko masaa mel day taw ñu baldi boole timis sa gee ci jàkka ja ñibbeendoo benn yoon taayee dem di ñëwaat ca geega ba ca topp mooy jullit jumaa ba ca mujj nag mooy jullit wuutal maanaam ilimaan am ngànt am ku mu wuutal nga xam ne kooka soppiku na ilimaan waaye maamum la woon yent jul yooyu dañoo waxoon ne ilimaan ji koy jiite na teewluwaale yéene njiit ga nde sax nit moom daanaka lu muy def li ci ëpp dana ko di yéene mu toll nag ci kitaabu zakati lii mooy téereb asaka maanaam daal li mu jagleel asaka moo nekk nii furidat farataaleef na zakatu asaka fiimaa ci la nga xam ne yurta sa mu def na ko bind xay ninte mooy kee wa xabbin ak pepp wa simaarin ak ay meññet wa naamin ak juy kër nee na asaka yi mu war ci lislaam mooy wurus ak xaalis moo tudd kee ak juru kër juru kër nag moom day dugalaale xar bëy nag gëléem bu ko defee mbay nag moom day dugalaale pepp ak meññet yooyu ci la asaka war mu wax nag kañ la cay war xàqat yey na moom asaka ku la xaamin ci mépp at fi na ay ni ci kee wal an xaami ak juri kër ya wurus ak xaalis ak juru kër at mu nekk rek asaka war ca kenn ku nekk am atam lay seet nag du seet ne at mi tam xarit lay tàmbalee ba weeru tabaski dee déedéet day seet rek moom atum boppam waaye du seet at mi dëgg-dëgg su ko defee nag bu fekkee da ngaa yor alal yi juri mbaa yooyu at mu nekk asaka war caa génn war ngaa fexe ba dugal ko foo xam ne dana di yokku ndax boo ko deful day mujj rek asaka jeexal ko ndax moom at moo ko génnee rek bu del see te mataat nisaab nga war a génne waatati asakaati moo tax mu ne xaqat yey na ku la xaamin ci mépp at moom asaka yëkkamul moom dana mat fin xay ni ci kee wala an xaami ak juri kër ya wala xab bu pepp ma yuraamu def na ko sàkku bil ifraaki ca dijji ga pepp nag moom bu demee ba dijj rek mel na mu war a mel maanaam ñor xom rek moom pepp mi su booba asaka war na ca nga xam ne kon jamono yam ñoree boo tàmbalee di ca lekk mbaa nga cay dindi di jaay mbaa nga cay dindi di joxe addiya mbaa di ca saraxe loolee booy joxe asaka war a seet lu tolloog loola ca asakaam nga génne ko ca wa tamru tàndarma wa zabibu ak reseñ bi tii bi nekk na ci teey ga tàndarma ak reseñ bala ca asaka war dafa ñoro ba dem ba neex bu ñoree ba neex na mu war a neexi rek asaka war na ca moom it loo ca jaay ca gannaaw ba mbaa nga maye ko ca mbaa nga def ca neneen daal booy génne asaka na nga seet la tolloog loola nga génne ko ci joxe wa fii di sayti ak ci borom diw ga min sayti yi ca diwam ga bu dee lu ñuy segal muy am diw kon dañuy génne asaka ja ca diw ga loolu nag zeytoon moom jàppal ne bu dee zeytoon boo xam ne am na diw moom génne asaka ca diw ga dong mooy baax lee mu ca teg ne wal xab bu pepp ma yaf yi dana matale da caa jubloo wax ne borom diw ga boo génnee asaka ca pepp ma bañ ko génn ci diw ga mu baax waaye jàppal ne saytoon moom bu xasee am diw génn ko ci diw ga dong mooy baax boo génnee asaka ja ca pepp ma du baax boo ko génnee ci njëgg ca ba nga ko jaayee itam du baax wax ya moom asaka alxushuru mooy fukkeel ba fi simaari ca meññeet ya wal xab bi ak pepp ma aw nisfoo mbaa boo genn wàllu fukkeel ga in ya jurra ndem mooy diri alata saq yi jumtukaayu suuxat ga nee na bu fekkee ne day xeetu mbay muy pepp ak meññet la nga ca war a jox asaka mooy fukkeel ba mbaa genn wàllu fukkeel ba dañu koy teqale bu fekkee asamaan si mooy suuxat wala dex gi mooy suuxat mbaa machine lay suuxat waaye yow doo ca fay dara dara dara kon su boobaa da ngay génne ab fukkeel mooy la nga bay bu xasee mat nisaab boo ko defee fukki xaaj benn ma ngay joxe ki boo ko doon seet ci ay bërigo te mat fukki bërigo benn bërigo ba ngay joxe asaka te juróom-ñeent ña su fekkee ne nag yaa koy suuxat ci sa loxo. mbaa machine koy suuxat waaye da nga cay fay kon da ngay joxe genn wàllu fukkeel mu ne bu fekkoon ne benn ton la moom la nga bay da ngay joxe genn wàllu barigo doo joxe barigo bu mat xam satu aw suqin juróomi wasxa nag nisaabu nisaab la fii himaa ci ñoom ñaar xam nga leen lu nekk daa am tolluwaay boo xam ne moo tudd nisaab boo ko amee asaka war la boo amul lu ne toll asaka warul la bu la neexee sarax rek ngir yàlla waaye asaka du la war bu dee ci mbay nag moom mbaa meññet li fekk amoo ci lu mat juróom benn barigo asaka du la war juróom wasxu yi moom lu mu néew néew mat juróom benn barigo daa am ñuy teqale nag juróom wasxu yi bu doon ci gerte ak bu doon ci dugub ak bu doon leneen waaye daal ñi nga xam ne moom la ñuy jàppee benn saa ñaari kilo ci tolloole bu digg doomu daal boo ko defee juróom wasxu yi moom juróom benn barigo la lay jox juróom-benn barigo daal mel na ni digg doomu ne ci nga jàpp ne mooy nisaabi mbay soo amee lu ko mat mbaa lu ko ëpp boo ko defee fukki xaaj joxe benn ba ndegam asamaan ay suuxat mbaa fayoo ca dara bu fekkee ne nag sa loxoy suuxat mbaa da nga cay fay nga joxe genn wàllu fukkeel kon loolu mooy lu aju ci wàllu mbay xul waxal ne mi ataani mooy ñaari téeméer dirhaman ci ay dërëm fii fiddatin ci xaalis maanaam xaalis moom dalay njëkk a wax lan moo cay nisaab door laa wax la nga cay génne ñaari téeméer yi mu wax moom da cee jublu ñaari téeméeri dërëmi yoon su boobaa na kon ñaari téeméer yi nga xam ne moo xew ci réew mi xaaju tamat sax nisaab daa am jàpp ne nag moom ndegam ñaar téeméer génn ci juróomi dërëm yomb na ñu far ko jàppee rek ñaar téeméer yi waaye déggal ñu waxal la ko nga jàpp ko jàppal ne daal moom ñaari téeméer dërëm yoon boo ko doon seet ci ay ngaraam ci xaalis bu sell bi nga xam ne moom la tëgg bi tëgg di ko xel di ci tëgg ay lamak ay jaaroo yooyu day tolloog 695 ngaraam 695 ngaraam nag boo seetloo ca tëgg ba maanaam boo laajee tëgg ba benn ngaraam bu ne tey ji lu mu koy jaayee ci xaalisu CFA mu ne la nangam la mel ni démb baa ko laajee dañ ma ne woon benn ngaraam mi ngi toll ci 280 280 nag kon moom ngay def multiplier 595 ngaraam lu mu la jox rek loolu mooy doon nisaabi xaalis ca jamono ya nga toll xam nga ne nag ngaraam boobu moom loolu mu ne moom lay jar ca tëgg ba day yéeg a ko wàcc waaye démb daal moom baa ko laajee dañ ma ne woon mi ngi toll ci 280 kon 280 boo ko multiplier 595 mu jox la 166 600 nga xam ne kon démb rek démb boo ko doon seet mu nisaa bi xaalis toll ci xaalisu CFA da ngay wax ne kon démb mi ngi toll woon ci 166 600 waaye nag daa am gëstu bu yees boo xam ne boroom xam-xam yi daañu koy wax dañoo wax ne dañoo war a far jël xaalisu CFA ak mboolem xeeti xaalis yépp moo xam dollar la moo xam rial la takk ko ci 85 ngaraam yi nga xam ne mooy nisaa bi wurus ndax nu wurus moom du faral di soppiku te boo dee seet yenn xeet yi nga xam ne asaka war na ca la nga cay am ba tax asaka war la day xaw a bari lool mel ne boo dee seet gëléem li fekk amoo ci juróomi gëléem asaka du la war te gis nga ne juróomi gëléem lu bari lay doon ci boo ko doon jaay ci xaalisu CFA nag bu fekkee amoo ci fanweer asaka du la war faaw nga am fanweer te gis nga fanweer yi nag boo ko jaayoon tey na muy toll na muy baree ba tey seetlu nga ne gàtt muy xar mbaa bëy lu néew néew bala jaa asaka war nga am ci ñeen fukk te xam nga ñeen fukki xar nag mbaa ñeen fukki bëy boo ko doon seet ci xaalis CFA day bari moo tax ñu ba ñu mujjee seet nag xaalisu CFA lan moo ca war a tolloog 85 grammes ca wurus booba mi ngi toll woon ci 610 000 maanaam téeméeri junni ak ñaar loolu nag mel na ne kon boo doon seet kon nisaa bi xaalisu CFA ci gis-gis boobu nga xam ne moom la ñoo ñu wax kon lu néew néew rek faaw dana mat téeméeri junni yu tegal mu néewoo mu bari gëstu boobu nag mel na ne yell na ci boo ko déggee hijroona ñaar fukk diinaaram ci ay diinaar nisaabu nisaab la fi dahabi ci wurus wurus moom nisaabam mi ngi toll ci ñaar fukki diinaar ñaar fukki diinaar nag boo ko dee seet ci ay ngaraam day toll ci 85 garaam kon wurus boo ci amee 85 garaam am nga nisaab asaka daal cay war mu wax nag na asakay toll ci xaalis ak wurus ndax waxu ko koon ba léegi mooy waru buxul xushri kaaru fukkeel ba waja ba war na fii ximaa ci ñoom ñaar wurus ak xaalis bu ñu xasee mat nisaab boo cee génne asaka la nga ca am da nga koy def fukki xaaj benn xaaj ba nga xaajaat ko ñeenti xaaj ñeenti xaaj ña nag nu mu toll rek lu ca benn toll rek ci ñeenti xaaj ña mooy doon sa asaka man nga koo misaal ci booy yoroon benn million bëgg caa génne asaka da nga koy diviser par 10 maanaam da nga koy def fukki xaaj benn xaaj ba doon ñaar fukki junni ñaar fukki junni ya nga defaat ko ñeenti xaaj muy divisé par 4 mu daal lay jox juróomi junni kon jàll ne juróomi junni mooy asaka yi benn mil sa xaalis nag lu ñu bari bari bari noonu rek nga cay doxee ci boo cee génne asaka wal ardu marchandise ma bu tajri may boroomu yaxantu wa daynu man ak borom ka nga xam ne adaara wëndeel na xiimatuhaa xayma seen ñoom ñaar kalxay ni mi ngi mel ne ki keega kee mooy wuru sa xaalis boo ko déggee ci waxin wolof daa wax ne koo xam ne moom dafay def commerce bi ñuy wax idaara idaara mooy ni jaaykat yi ëpp jaayee maanaam daal li ñuy yor ci marchandise dañ koy jaay ci prix normal nekkuñu di ci xaar njëggu seer a seer maanaam aw kaañ déedéet li li muy jar rek lañ koy jaayee te itam bu jaree dañuy jëndaat beneen teg nga xam ne kon xaalis du sax ci seen loxo marchandise du sax ci seen loxo waaw ku mel noonu moom nee na bu am atam deexee mooy waxtoom tàmbalee woon a jaay rek lay seet du ci seet atum lislaam mi nit ki tam xarit ba tam xarit déedéet day seet rek waxtoom tàmbalee woon a jaay bu amee at rek mu xayma mboolem li mu yor ci marchandise te xaymaa ko njëg nga xam ne moom lay jar ca yooyu jamono ak ci béréb ba mu nekk itam ndax xam nga njëg day wuutee ci béréb ba ak jamono ya waaye kon béréb ba mu nekk ak jamono ja mu nekk rek lay seet na njëg gay demee mu xaymaa noonu mboolem marchandise bi mu yore seet itam lépp lu mu yor ci xaalis liquide muy xaalisu kese bu amee lu mu dénkaane fenn itam mu boole ko ca bu amee bor bu ñu ko amee boo xam ne wóor na ko ni moom moog lu mu téye yam ndax ka ko amee ko jub la te mu ngi koy indi kon lépp na ko boole su ko boolee nag ne nangam la mu daal di koy diviser par 10 ni ma waxoon léegi bu ko defee par 10 nag loolee génn mu diviser waat ko par 4 par 4 yooyee nag waaw benn xaaj ba ci ñeent yooyee muy par 4 ya benn boobee moom lay joxe muy asakaam ak nu mu mën di toll rek ndax loolu mooy kaaru fukkeel ah loolu nag kon mooy ni nga xam ne moom la jaay ko di war a asakaale lépp ci ñoom bokk nga seetluwaal nag ne xiimatuha jëm wax daa mel ne xiimatuhuma moo doon cosaan bu ko defee xumaa ji muy seen xayma ñoom ñaar mu dellu ci marchandise mi nga xam ne dañ ciy yaxantu muy benn ak bor ba nga xam ne moom lañ ko ameel te mu ne woon moom wóor na ko ni mi ngi ñëw ndax ka ko amee am na ko te ko jublu mi ngi ñëw kon xiimatuhuma seen xayma ñoom ñaar mooy cosaan waaye nag dafa def rek xiimatuha mel ne sax bu ñu defoon xiimatuhoo mooy gën a jub ci zahir waaye nag noonu la ñëwee ci téere bi summa buxtikaarin topp boroomuk dakkar ci dakkar ci xeetu commerce la maanaam mooy da ngay wut marchandise mi di ko xaare njëg gu neex a neex a neex waaye rek doo ko jaayee prix normal mooy safaanu bi nga weesu léegi kooku moom zakka asakaal na xay nan kee di xab di samanin fa ngëp njëg aw dayni wala ngëp bor bi chartil xawli ci sartub atma lil aslay ni ñeel yaari cosaan ya koo xam ne daal moom marchandise am da koy xaare loola dema dem ba jafe ba njëgg àgg ci kaañ mu door koo jaay bala koo asakaa wara dafa jaay marchandise ma ba mu jar bañ fay ko ko te bañ ko ko fayee muy wuru sa xaalis te buñ ko ca fayen sax mu doonaat marchandise it day xaaral rek ba mu jarati suñ ko ci ameelee borub wuru sa xaalis it li fekk ñu ko koy fay rek asaka du ko ca war kon nag saa yu jaayee ba loola jar ba mu ngëm njëgg muy wuru sa xaalis mbaa buñ ko ci ameelee bor ñu fay ko bor ba muy wuru sa xaalis su boobaa lay seet nag cosaanul marchandise ma mbaa cosaanul bor ba bu bu fekkee boobaak léegi mat nam at mu door a asakaal asakay menn at nga xam ne su marchandise ma yàggoon ci loxoom ba am ay ati ati at itam du tee rek bu dee asakaal moom du wàññi na at ya toll day seet rek ba mu ngëbee loolee muy wuru sa xaalis mu génn ci asaka benn yoon mel ne menn at la waaye du añ waaye du wàññi na at ya toll nga seetlu nag ne bu amee